njëkk yi les anciens ñoom boo leen xoolee temps bi ñu am dafa seen dëkk bu yàgg donc tey bu ñu ñëwee bëgg jël euh, bëgg référé ko si ñoom di jël un président de ko jox mandat de cinq ans deux mandats donc temps bi muy am pour mën a construire dëkk bi dafay jafe parce que ñoom ci maintenir rek lañu doon te ñun dañu toog ci donc su ko def loolu il faut que population bàyyi si xel ñu xoolaat constitution yi ñu xoolaat ko

Euh, député bu Grand Yoff Omaro taxaw ne damay dellu si waat Grand Yoff comme relancer samay activité politique loolu mu nekk loo xamante ni en tout ñu koy tàllal loxo naan ko ñëwal parce que maanaam seentu weer lu jarta boo xam am na fa comme ñëpp niñ fa amee seen place kon jàpp naa que ni tey vraiment mbégte am ñëw représenté fi président Macky Sall fi en la peuple sénégalais. et eh, dañoo jàpp nga ni tey Grand Yoff nekk na en tout cas fief bi nga xamante ni képp kuy politique rek teg na bët Grand Yoff parce que si dayo bi mu toll la parce Grand Yoff tey électorat bi mu fa nekk am na ay région yoo xamante ni Grand Yoff mat na leen ñaar ci lim la fay dënd kon donc tey bu Omaro taxawee ne dafay ñëw Grand Yoff parce que du question daf ñu tiital parce que moom dafa xam ni foofu la juddoo kon donc dem fépp fu mu dem li fi tëgg rek tey mu ñëw tëgg Grand Yoff moo gën a wóor te muy dem ci tëggi feneen kon donc loolu ñun ñi nga xam ne ñun la fa yàlla teg ñu nekk fa député Grand Yoff boobu mu invité ma ma ñëw taxaw si turu Grand Yoff ak si turu Dakar parce que man député Dakar la